la fay ci àqullahi taalaaw boole ci it euh, balaa muy nuyu kenn jiital ki ki nga xam ni mooy kilifa jal bi ma bokk mu di sëñ Muntaxa Mbàkke waaye ki yore sama wasila sëriñ euh, euh, Cheikhouna Mbàkke bu sëñ Baara mooy sama wasila ma nuyu ñëpp rawatina nag téléspectateurs yi nga xam ne nii ñooñu ñuy topp euh, samedi bu ñu bu jot. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, du yoon may jagleel nuyoo bu sell bu màgg mm-hmm. bu rëy euh, waa ñi nga xam ñoo nekk bitim réew. donc ñu nekk suñu soppi suñu xarit suñu am di jàmm. man dañ may faral di téléphoner. di ma wax seen i bëgg-bëgg. yenn saa euh, ñu gërëm ñu sant ñu. Mm-hmm. yëpp Feeling Dakar moo ko moom. parce que ña koy suivre foofu ci bitim réew. Mm-hmm. dañoo bari. Euh, donc euh, ñu leen di gërëm di leen sant. Mm-hmm. di leen beral nuyoo boo xam ni bu am la. bu Euh, am solo. Mm-hmm. Euh, jox leen seen wàccuwaay. Mm-hmm. Euh, ba tey boole leen considération boo xam ne bu am solo la tamit. Mm-hmm. waaw loolu yëpp nag Feeling Dakar a tax te Feeling Dakar. Feeling la bu màgg. Ah. xajul sax ci loxo. xajul ci xel. wàcc ñu ci xalaat ak xol. ak xol d'accord kon jërëjëf. jërëjëf papa def lu dul dugg ci waxtaan bi. Euh, je pense que ni keroog jaloog bi euh, suivre nga ko seetaan nga ko li nga xamante ni moom nañ fa euh, mujjee waxtaane ci li ñu tënk mooy le 2 juin dañu bëgg élection yi donc yaakaar naa seetaan nga ko dégg nga li nga xamante ni moom la Macky Sall wax ñu ne doyal na sëkk ci réew mi ba le daal dina jéem a waxaat li nga xamante ni conseil constitutionnel mu xool naka la koy defee mais moom daal jàpp na ni doyal na sëkk ci dëkk bi ban jàngat aussi nga am. ci lu Macky Sall mujjee wax ci li nga xamante moom mooy dialogue bu mu doon woote. njuumte. njuumte. waaw ndax kilifa du waxee noonu. Hmm. Macky amul lu ko Sénégal mayul. Hmm. depuis bi ñu ko tabee fii directeur euh, je crois Petrosen la yore woon. Hmm. Euh, ba mu fa jógee dafa mel ni loolu daf ko jëkk. d'accord ay grade ñooy teglu teglu teglu teglu. daanaka sooy seet Sénégal jox na ko lépp ba ci président de la République. kon di wax naan doy na sëkk ci fii. Mhm. man musuma gis loo xam ne nii jég na la. Mhm. jox la martaba. Mhm. jox la lu ne. nga naan ko doy naa sëkk. dafa mel ni yàlla di ko jox. bu jékki-jékki daal na ko noonu arrêté doy naa sëkk. donc wax la joo xam ne nii erreur bu mag la. parce que euh, lu bu gàtt gàtt. am na lu ma xam ci moom tuuti. donc. Euh, te loolu laay amee reconnaissance ci moom. Mhm. li ñuy seq man moom jéggal naa ko bu yàgg. Mhm. comme day dem. Mhm. dégg nga jéggalaale ko wax yooyu wax yu damm gi. wax yoo xam ne nii kenn mosu ko imaginer dans la vie. ni kii dana dem ba toll foofu di ko wax. buy mer na mer. waaye new gisaat soigner langage parce que li ko fi dese. def jàmm moo gën fuuf loo xam ni day suli leneen loo xam ne bay yëngal xolu nit. Mm-hmm. donc euh, nga seet ci réew mi wala mu seet ci jabaram ndax li mu jot a def fii mm-hmm. ci réew mi jabar ji mm-hmm. te lépp Sénégal jox leen ko ah. war na rus jabar ji ba am na kàddu yoo xam ne bu koy wax réew mi bañ ne ba tuddee jabar ji sax dara fii kon bu ne suur na këll loolu xanaa kon suur ne turu jabaram di mu am fii ci hôpitalu Fatick kon da nga wax wax ji wax rafetul en tant que kilifa mu toog. ba réew mi war ko euh, joxe ci. bu nga xamante ne ni mu gënee. bu ko seetloo woon dëgg dëgg dëgg loolu di génn ci làmmiñam man maa la wax li parce que juddoom fii déjà. lu rëy la. est-ce que nekkul dialogue bi ñu doon woote ñu doon xaar candidat yi ñëw ñëwul est que tamit loolu bokkul ci ni ko gën a metti mais ku tànn politique. moo tax mu jëlee noo ah. ku tànn politique du moom. mu dugg ci politique. Mm-hmm. ba réew mi may ko li mu ko may lépp. Mm-hmm. mais digganteem ak Sonko. coxorte bi mu ci dugal nga xam ne mosuñ ko boole ci politique. Mm-hmm. looloo waral li mu indi amnistie bi. d'accord parce que def na ko loo xam ne nii. politicien mosu ko doxale fii ci Sénégal. d'accord ca jamono yi Lamine Gueye ak Senghor. et ce fii au ba waxtu wi ñu kii mu hmm. suñu gis loo xam ne di ko toppee nit ba mu jaral la yenn yi li ko dal yëpp actuellement hmm. moo yëy xalaat amnistie d'accord foofu sax nañ fa dugg nañ fa dugg incha allah hmm. parce que dañuy jaawale amnistie jaawale li nga xam ne nii président tamit euh, yoon jox na ko constitution moo ko moo ko jox maanaam waaw ay fête Mm-hmm. yu fi musa am yëpp. Mm-hmm. lim ba mu daan génne. di ko baale. Mm-hmm. Euh, lim boobu. je crois que lu am solo la woon. kon yooyu yëpp nga xam ne nii jot na ko xam ba pare daan ko jëfee. ñu ko ciy wax jërëjëf. waaye moom waru woon wax yi muy wax wax ji mujj yii. ci kuy dem. dafa jekku rafetu dem na bu ne day jox li nga xamante moom mooy conseil constitutionnel mu xool. naka la koy doxalee daal mais moom daal jàpp na ne day dem. waa xam nga loolu aussi. Mhm. dafa am loo xam ne nii. Mhm. moom lay jur fii ci Sénégal. d'accord parce que bu doon sago nit ñi yëpp balaa muy wax yooyu yëpp. Mhm. buy dugg ci amnistie. donc daal dafay dugal boppam encore ci leneen loo xam ne nii. franchement euh, xalaat ko sax waru ko woon. li tax nit ñi tamit di gën a wax na ko amnistie bu mu bu mu ci jaar. Mhm. parce que dafa am mbir yu bëri yoo xam ne xew na fii. Mhm. ñu commencé enquête bi ba am fu ñu toll. Mhm. yenn yi sax dugguñu ci enquête. nga tëb daal ne dañu war a amnistier tout le monde xam ne on amnistie pas la personne. mais on les faits. donc euh, booy amnistier les faits. dafa mel ni yow donc li nga xam ne xew na fi yëpp. Mhm. sa bopp daal nga ci gën a gis parce que am amnistie sibi mu bëgg a def. Mhm. digganteem ak Sonko. Mhm. fa la ëppee. d'accord ñi naan. Euh, rawatina rey yi nga xam ni nii. jot nañ ko fi def moom ci boppam. su su xalaatee nga xóotal xalaat ki nga xam ne nii jar nañu xalaat ko. maanaam rey yu bari yeeg yooyu. tout à yooyu franchement nit ñi seen bopp. mënuñu ko dindi brusquement seen xol. te waruñu rek dégg nga euh, libérer les jeunes là. sans accompagnement. li ñu toog prison yëpp. am na indemnisation boo xam ne nii. war nañ ko def moo war nañ ko def. Hmm. bu dul ñoom sax encore am na ñeneen ñoo xam buñ ko yaatalee ci dëgg dëgg dëgg. Hmm. réew mi ci boppam. Hmm. kii ko yore wala di kilifa wi. war na indemniser ñu ci bare bare bare. parce que ñii seen kër tas na ci. Mhm. ñii seen jabar dem yoonam. Mhm. ñii ñàkk nañ ci seen liggéey. Mhm. ñii dañ ci gaañu laago nar leen na topp. ci gaañ gaañ ba. ñii tamit euh, lu ne daal am na ci loolu. donc boo tëbee tëb daal di génne benn loi boo xam ne da ngay amnistier ñooñu. xol mënu ko muñ attanu ko li ñuy amnistier au moins. su fekkee ne sax tëj nañ ñooñu. Mm-hmm. wala ñu jaaral leen yoon. Mm-hmm. li ci war ñu def ko ci. Mm-hmm. ñëpp ci bokk yam donc euh, je crois que dina am sax une partie boo xam ni dañ ne seen xol. barki dem boo njaay la ñu suul jeune boobu. nga xam ne nii ndar lañ ko. dañ ko faate donc euh, kan moo ko faat. jënteeguñ ko. donc yooyu yëpp def fi daf yenn ci kii ba pare moom it doxaliinam aussi. am na noo xam ne nii franchement neexul ci xool ñu di ko jéggale. d'accord jëlee la ko. dafa mel ni ku ñëw def sa tooxi noonu ba pare daan na nag daal furaas nañ ko fàtte. nañ ko fàtte. d'accord noonu bu noonu boo bëggee rek la mbir moo xam ne naqar la. Mm-hmm. ci xol yi ci kër yeeg. Mm-hmm. xalaat yeeg yëpp. bu bañ cee des. Mm-hmm. donc vraiment il faut nga euh, tooyal mbuus jéem a fexe ba nga xam ne ñooñu am naqar. d'abord. ñu teg ko ci yoon. Mm-hmm. mën ci àtt ñëpp. Mm-hmm. ñëpp bokk ci yem. ba pare ku nga yeyoo ci àtt bi ñu teg ko. Mm-hmm. bu fekkee ni nag léegi ñëw ñi la war a baal baal nañ la. su boobaa ñu soog kii wax ko. d'accord euh, papa da nga wax lu am solo. Mm. ci wàllu amnistie boobu. je pense que depuis Sall waxee ñu bari. xalaat nañ ci benn côté. Euh, nee nañ est-ce que nekkul Macky Sall bëggul. protéger ñi nga xamante ni ñoom ñooy njabootam loolu la war mu bëgg a teg li nga xamante ni moom mooy loi boobu yóbbu ko assemblée nationale pour ñu voté ko euh, aussi tamit ban jàngat nga am ci di Sénégalais yi xalaat ndax nee nañ Macky Sall bu defee loolu dafa bëgg a protéger ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gannaaw. waaw xam nga loolu lay nuru. d'accord dafa am xasawaay yoo xam ne nii. Mhm. bu taajoo ci ëtt bi rek. Mhm. suñ ko génnewul na mu waree. na mu waree daf fay des. d'accord. xoolal yàpp yi ngay xam ne nii mooy fanaan ci biti mhm. gisal par exemple nga romb benn mala boo xam ni dañ ko rey mhm. mu wow koŋ bay génn xet mhm. nga xam ni yaram wi yëpp yàqu na